ak euh, li dox diggante Mali ak Sénégal ci histoire Ibrahima Sène ñu ngi lay nuyu amati mbégte dalal ci plateau wu Demb ak Tay. Euh, maa ngi lay fay soxna si di kontaan di am mbégte waxtaan ak yow encore ci problème mu Afrique. Mhm. merci jërëjëf ñun ñoo mbégte lool ci waxtaan ak yow ndax euh, sa xalaat yi nga ci joxe macha allah yu am njariñ la ci gis-gis wu ci ñu bari am alors euh, ñuy waxtaanee tey ni ma ko waxee lu xewoon ñaar fukki fan weeru août atum euh, dix neuf muy bi Sénégal di jël dogalu génn ci fédération du Mali daal di proclamer indépendance am en tant que état unitaire maanaam doon euh, menn réew ndax mun nga ñu ñëwaatal ci xew-xew boobu. waaw xam nga xew-xew boobu bi muy am ma maa am treize li mooy ci njëkk a yëg ci xeex boobu mooy ma gis président Senghor donc gisuma ma dëgg président Senghor muy wax ci rajo bi di wax ni ce qu'il voulait c'est nous coloniser ce qu'il voulait c'est réduire en esclavage et que nous tant que descendants des Ndiaga Ndiaye nous refusons cela et nous avons pris notre indépendance boobu discours la Senghor def il malien yi la doon wax il Modibo Keïta ak ñi mu àndaloon lay wax waaye bi ma gënee dellu nekk mag jàng mbir yi seet ko ma xam ni li tax Senghor doon wax di ko waxee noonu ah, xolu Sénégalais yi rek la bëggoon njëkkati waaye du woon mëbëtu waa Mali doon mëbëtu ah, ah, Modibo Keita ah ndax lan la Sénégal ak Mali dañu bokkoon ci temps colonial euh, euh, ci mouvement politique bu ñu tudde woon rassemblement démocratique africain RDA Houphouët-Boigny jiite ko ji hmm. euh, yoroon Sénégal muy ci temps ci temps boobu muy Lamine Gueye ak Senghor ñu woon ci doxalin bi li RDA bëgg ni dafay euh, nekk groupement boo xam ni dafay ëmb euh, askanu Afrique yi nga xam ni euh, Afrique de l'Ouest nga xam ni France moo leen colonisé ëmb leen ñu nekk benn taxaw di défendre doo seen intérêt seen bopp mais li ci gënoon noo metti Senghor c'est que ñoom waa RDA parti communiste français daf leen jàppale woon pour que ñu gën a moom seen bopp gën a am seen taxaway ci biir colonie bi loolu nag tax Senghor ak Mamadou Dia euh, euh, lëkkaloo ak yeneen parti yoo xam ni en France ñoom ñoo saytu nguuru France saytu. yore colonie yi d'ailleurs euh, Senghor ak euh, Mamadou Dia comme Houphouët-Boigny ay député lanu woon assemblée nationale française mm-hmm. euh, Mamadou kii Lamine Gueye moom sénateur la woon d'ailleurs constitution bi nga xam ne De Gaulle moom la proposé eh, africain yi pour ñu woote ko euh, cinquante ci référendum cinquante huit constitution boobu Senghor bokk na ci ñi ko bind. Hmm. kon bokk euh, bi nu demee référendum cinquante huit évidemment euh, puisque Modibo Keïta xelam mi ngi nekkoon ci ñu dem indépendance en tant que groupement des pays africains dans le RDA moom. mu def compromis ñi na na na ànd ak ñi wax wéy euh, te ñu jëm a góorgóorlu pousse leen pour ñu tudd indépendance Sékou Touré gisewu ko noonu Sékou Touré moom dafa gis ni ñi ko seqal muy Senghor ak Houphouët Boigny ñooñu indépendance nekkul seen xel hmm. lii lii gëtën senegal ak euh, diw réew yu yëpp gëtën leen bàyyi leen ci loxo France loolu moo tax ñu jóg loolu moo tax sécurité bi moom day benn wax non jël indépendance am ah liy jox dëgg sécurité mooy ah, bi nu bëggee eh, defar tax fédération de Mali mooy fédération bu doon ëmb pays RDA yëpp ah, Houphouët-Boigny bañ ne du ci bokk. Ah, daal di fexe ba ay haute bolta mooy euh, euh, Burkina ak ñu naan wër yooyu euh, yëpp ñu bañ bokk ci fédération Mali ba fédération Mali mujjuloo nekk lu dul Sénégal ak Mali. bi 1960 di loolu xam ni colonie yi bu leen joxul indépendance dana gën a sonn mm-hmm. surtout ndax guerre bi muy guerre. Euh, contre indépendance Algérie euh, sonal na ko guerre bu noonu guerre contre indépendance euh, Indochine sonal na ko mu ne ñu man daal naa gaaw jox ñi seen indépendance. wax nañu mu ngi tàmbalee law ku nekk di bëgg a laaj. non ñoom laajutun woon sax eh, ñoom dañoo bëggoon def seen gouvernement boo xam ni gouvernement day am doole pour mën a jàkkaarloog France. Hmm. loolu moo taxoon ñoom Modibo eh, vraiment dañu gisee ni Houphouët Boigny ak ñi mu bañ nanu mu ni kon mbokk daan ànd ak Senghor daan ànd ak Sénégal def suñu gouvernement fédéral mm-hmm. mais mun defee seen gouvernement fédéral ah te France bëggoon jël ay ay armée bi yu jógee Sénégal dem jàppale ko Algérie mm-hmm. pour xeex Algérie yi mu du kay te bañ Modibo Keïta bañ ni fédération Mali mënul def loolu mhm. loolu moo lal seen euh, euh, ànd juboo loolu mu yàq ànd ànd bi te eh, ki ta ko ne toppoo Senghor toppoo woy dañoo bëggoon Modibo Keïta dafa bëggoon nekk président Sénégal ah non président ñoom li d'accordoon Modibo nekk président fédéral loolu loon d'accordoon mhm. assemblée national assemblée fédéral Lamine Gueye jiite ko loolu lañ d'accord mais puisque France bëgg na yó yóbbu Sénégalais treize Sénégalais parce que amoo guddóor armée national hmm. treize Sénégalais yóbbu leen Algérie pour ñu jàppale ko comme nañ ko jàppale woon Indochine contre indépendance in euh, Vietnam loolu moo tax ñu jiwoo Senghor daal ni ñoom daal ndax jël euh, nañ sunu indépendance Mali nañ si jóge nañ dellu seen dëkk loolu nag mooy problème bi am ci diggante euh, Mali ci temps yooyu ak Sénégal. kon boobu Sénégal la nekkoon capitale bi. Euh, waaye Sénégal mooy doon capitale Dakar moo nekkoon capitale fédérale. d'accord bon loolu évidemment mu nekkoon góom bu metti ci diggante leader politique. Euh, yu Mali yi ne au pouvoir ak leader politique yi ne Sénégal au pouvoir mhm. mu doon góob bu metti ah loolu euh, tax na li li wane woon ni Ba Keita dafa bëggoon ñu génn ci loxo France moom dañ jëlee indépendance dafa génn ci zone franc comme Sékou Touré moom dana ko dàq zone franc mais kii moom dafa jël décidé génn zone franc dafa euh, bañ a accord militaire avec la France mhm. mu signé accord militaire avec l'Union soviétique loolu mooy wane ni moom àndandoo bi Senghor bëggoon ñu ànd ko France d'accord ci mais Senghor moom moo signé accord monétaire bi def dëkk bi ñu bi ñu dugal euh, zone franc moo signé accord militaire ak la France ba armée sénégalaise ak bi ñu fi bi ñuy def bi ñuy def France ëmb ko euh, mu signé accord culturel pour que langue française continue di nekk am langue officielle hmm. voilà loolu moo indi moo lal mbir mi doon question Modibo Keïta ak Malais yi dana coloniser Sénégal hmm. parti parti yi ko bañoon yi ko eh, amuñu woon doole. Hmm. mooy kan mooy PA ak PRA Sénégal. bu Ablaye Ly PA ko interdire avant même Senghor Euh, di tas fédération Mali. Hmm. kon bokk fii Sénégal amul woon force politique yu mënoon dugg contre Senghor li mu bëgg a def tax da ko tas interdire ko leen di wër fu ne di bu doxatal loolu mooy euh, moo xewoon vingt août mille neuf cent soixante ci Sénégal. diggante Sénégal ak Mali. Mhm. alors symboliquement tàqalikoo googu nan la demee ndax li nga wax nii xëy na bi nga bi nga gimmee yow ak ñi fekkee jamono jooju ci ngeen ko jàng xam ko mais euh, jamono jooju même xale yi est-ce que gisoon nañu loo xam ne moo doon symboliser euh, que ni rupture am na diggante Sénégal ak Mali maanaam tàqalikoo dañ. tàqali moo koy waa Thiès ñoo ko gën a yëg. Hmm. ndax foofu la cheminots yi nekkoon foofu la maliens yi gënoon bëri. d'accord maliens yu bëri lañu buub génne Hmm. ñooñu ñoom gis nañ ko. xam nañ ko. loolu ñoom vivre nañ ko mais ñi ci def des puisque am loon force politique bu taxaw. Hmm. pour jàmmal ak Senghor ci loolu. opinion bi mënuñu ko mën a comprendre lu nu mënoon gis rek mooy li Senghor wax mu dem kett def na bëgg a coloniser. Hmm. daf na bëgg moom te ñun kenn du nu moom loolu la boobu discours. moom la mais li mandargaal rupture boobu moom waa Thiès ñoo ko gën a yëg. fii ci Dakar comme Dakar moo nekkoon capital bi est-ce que amoon na xëy na ay départ wala changement bu fi am boo xam ne ñëpp. te non non non non Maliens yi nekkoon ci gouvernement bi yëpp la ñu génne kenn hmm. après loolu koo xam ne uh-huh. képp koo xam ni symboliser nga Mali rek ñu génne la fii Dakar ñi fi nekkoon génne nañ leen waa Thiès yi nga xam ne ay liggéeykat rek la ñu woon ñu génne leen ndax ay Maliens la voilà le vrai problème. d'accord léegi euh, ginaaw loolu euh, ndax am na xëy na yoo xam ne jamono jooju ñoo ko bokkoon lu mel ni yenn institution yi naka lañu ñu woo ba ku nekk mën a dem te coow jibul. mais moo jël décision ak euh, Mamadou ja xam nga gouvernement autonome du Sénégal comme gouvernement autonome du Mali dafa amoon. gouvernement autonome du Sénégal moom moo ni fédération bi génne na ci na Mali yi dem Sénégal day déclarer indépendance mm. de autonomie nekk indépendant. lool loolu la symboliser boobu la bi am mais euh, bu fekkoon ne euh, euh, yëf yi demee woon na ni mu war a demee kon bala ñoo càqali kook Mali mm. mais dañuy laaj askanu Sénégal ndax bi ñu bañ a taxalikook France danoo d'accord dem référendum ah. nii dañuy ànd ak France bi ñu bëggee taxalikook Mali waroon def référendum nii dañuy taxalikook Bamako ba xam ay déedéet mais ñoom danoo wëyoon ci coobere France hmm. bi Modibo demee ñu jël ay soldats Sénégal yóbbu ñu xeexee Algérie voilà loolu nag Modibo doon bañ kon nañ ko def ko def ci lii tax Senghor ak Mamadou Dia xaw a jaxasoo mm. ndax Mamadou Dia dafa insister pour que ñu ramener les soldats sénégalais. kon moom ak Modibo ñoo bokkoon position. ah ma ne moom ak Modibo ñoo bokkoon position Mamadou Dia. non bokkuñu woon position trop non non. am na euh, am na position yoo xam ni moo nekk euh, radical. Mm. xam ne Modibo Keïta moo ko yoroon. te Mamadou Dia radicalisme boobu nekku ci woon. d'accord waaw. d'accord euh, parce que bu fekkoon ni mook Mody Ba ñoo bokkoon vision. Hmm. du nangu mukk Senghor tas. Euh, fédération du Mali. voilà kon àndoon na ci moom tas gi. Euh, mais écoute man tam xam naa xam nga politique. des nga def compromis yoo xam ni. dafay mujj sonal la. moom Mamadou Dia def na compromis bu nekk pour mën a ànd ak mais mujj na compromis wax ko ni Senghor dafa mujj te ko bu ndoxatal ko hmm. loolu la am na politique malheureusement am na compromis yoo xam ba ci deful ndànk communautaire ak yow du la neex hmm. d'accord alors lan moo nekk nag conséquences yi ginnaaw tàqalikoo googu ci askan wi ak euh, ci yorin wi ñeel ñaari réew yépp eh, Dakar Bamako doxatul le train Dakar Bamako amatul relation diplomatique entre Mali ak Sénégal amul. ah dafa daggoon. da da carrément carrément carrément ndax euh, Maliens yi comme Guinéens yi dañu gis ni Senghor ak Mamadou Dia ci tànku dëgëral France ci la nekk ci Afrique de l'Ouest hmm. euh, moom moo tax ñoom itam politiquement ñu koy xeex ñuy xeex Senghor lëkkaloog France aussi pour di leen xeex euh, coup d'état bu ne jëmoon ko def contre Sékou Touré jàllul euh, Modibo Keïta le coup d'état mujj daaneel soixante huit un lieutenant colonel de l'armée malienne France ëmb ko moo daaneel ko ni mu ko daaneele dafa daal di signé dugg zone franc signé def accord militaire avec la France hmm. kon bokk li moto bi bañoon kii ñëw def ko ànd ak nag euh, euh, ñoom Senghor vraiment ñu commencé rétablir relation yi diplomatique euh, ba saxaar gi mën a dawaat entre Mali ak Sénégal. Hmm. voilà. alors bi bi Senghor ñëwee décidé euh, rupture bi diggante euh, ak Mali euh, askan wi naka la ko gisee woon ndax dañu gëmoon li sengoor wax ànd ci ak moom wala amoon na euh, ñenn ñoo xam ni xëy na des ak Mali moo leen gënaloon. ndax gis nga ma ne képp wax naa ni tey ñi nga xam ni moo taxawoon di laaj indépendance en cinquante huit. Hmm. soixante avant ñuy tas Mali lan ko euh, lan ko lan ko tas. Hmm. lan ko interdire amatul force politique bu lié askan wi rajo benn rajo fi nekkoon rek mooy wax askan wi bi dégg amatul benn force politique bu mënoon jóg lié askan wi wax ñoom parce que PA yi kat euh, moom euh, ñu ngi koy bu ndoxatal foofu ñu koy wër hmm. seen bopp la doon tal pour mën a sauver seen parti hmm. avant ñuy mën a def dara moo tax par période yu boobu yëpp kenn waxul dara askan wi topp ndax benn kaddu rek la ñuy dégg ñu ni Malien doonoo moom te ñun kenn doonu moom. Hmm. xam loolu boo déggee ay kilifa mu ñoom rek di wax topp doonoo bëgg moom kenn doonu moom. Hmm. te amoo noo ko weddee déggoo leneen ba ci mën dara. Hmm. loolu moo ci nekk. d'accord. alors euh, diggante Sénégal ak Mali euh, bu ñu ñëwee ci seen ay relation historique euh, lan nga ñu ci mën a wax lu lu dox diggante ñaari réew yi. gis nga ñaari réew yi France moo leen taxale c'est vrai France moo leen dajale woon ci AOF bi ñu bëggee dem indépendance bëgg continuer nekk benn France féewale leen te. février boobu France def entre Mali ak Sénégal moo law ba Moussa Traoré def coup d'état Mali mën a lëkkaloo ak Senghor ñu mën a def ay coopération euh, te du ñu fàtte mukk ñun waa pays yi ni bi ñu Senghor tasee dina bundu xatal Modibo Keïta moo nu fatoon hmm. te euh, Senghor bi mu nu nu ñu bëggee gën a sonal dafa envoyé euh, benn euh, officiel Modibo Keita ne ko PA yi mu ne fi ci yow dañuy jéem a def euh, insurrection dañu bëgg def soulèvement armé bëgg a daaneel sama nguur te loolu du ko bàyyi. Hmm. nañ fi jóge wala ñun sunu coexistence bi ñu ñu ñuy ñu ñuy dafay dagg. Modibo Keita bi mu ci waxtaanee ak euh, ñoom Mazmout ñu xam ñu xam ne ay la yëwén euh, euh, Mali coono bi mu nekk waruñu ko tax beneen coono moo tax ñoom ñu jógee fa dem Algérie hmm. kon bokk Senghor ci tànk yooyu la nekkoon dëgëral France xeex nu te loolu évidemment bi Modibo Keïta daano am na ci ndam hmm. euh, euh, mais diggante Sénégal ak Mali dafay diggante boo xam ni euh, bu yàqoo rek hmm. Mali ñu ci gën a sonn ndax seen jëndal ak jaay ci poro Ndakaaru lay aw te ci saxaar gi lay aw bu ko Senghor tëjee mu jeex. Hmm. loolu bokkoon na ci li gën a li jafe-jafe Modou Ba koy ci gouvernement ak euh, euh, sanction yi gouvernement français jël sanction économique euh, ba moom nu mënuñu woon am bunt lu dul Union soviétique jàppale leen pour ñu mën a nekk loolu moo fa xewoon ba keroog Modou Ba koy di daanu maintenant bi bi mu daanoo Moussa Traoré ñëw ma bu Euh, diggante bi gën a gën a moo tax. Hmm. Euh, bi mouvement populaire amee Mali pour daaneel Moussa Traoré temps boobu Abdou Diouf moo fi nekk Sénégal dafa taxawoon pour euh, pour jàppale Moussa Traoré. Hmm. mais France. pousse na ko ci ba tey pour que Sénégal def intervention militaire mais Abdou Diouf set set mbir mi euh, ni mënuñu dàq Mali ni def noo bëggoon coloniser ëpp ñuy dem ñi dem Mali di dañuy libéré loolu mënul am loolu hmm. xel mënu ko nangu. yéen wul maanaam. Ah, ah du yéen wul hmm. Sénégal yi duñ ko mën a nangu te fekkoon na euh, euh, bu ñuy Euh, Moussa Traoré fekkoon na démocratie commencé di xaw a nooy ci Sénégal. Mm. ok am ay parti d'opposition même ñun bu nu bu nu continuer tere yi moo existé mais amoon na parti d'opposition yu génn mm-hmm. euh, par exemple euh, PDS. génnoon na mi ngi fi mm-hmm. waaw waaw parti mi ngi fi et puis Cheikh Anta mi ngi mi ngi fi waa Mamadou Ndiaye ngi dans l'opposition. ñoom itam PAI ak Mamadou Dia ñoo créé de national bu ñu tudd ànd soppi. Mm-hmm. ok kon bokk euh, askan wi am na yeneen kaddu yu nu mën a dégg yoo xam ni mm-hmm. bi rek moo koy wax. Mm-hmm. loolu tax na ba Abdou Diouf seetat ni li ko li France ba mu def mënul mënul moo tax euh, euh, Toumani at Adam Amadou Toumani Touré. ñu def coup d'état du may ñu jël mu daaneel Moussa Traoré ndax mouvement populaire bi pour toog ah, ATT loolu moo ko may jàmm bu fekkoon ni Abdou Diouf euh, xelam euh, ñorul ci yenn euh, ci yenn mbir yi dana dugal Mali coono dana dugal Sénégal coono bu kenn mënul natt bon loolu moo tax ATT mën a toog def transition organise organiser ay élection bi ñu defee élection euh, ki ko ku ko fa wuutu euh, moom euh, da France wóolu na ko Sénégal wóotu wóolu mais peuple malien moo ko fal dëgg dëgg dëgg dëgg mooy président Konaré hmm. mu def ñaari mandaam bi def ñaari mandaam pare Aminata Mary Touré dellu si waat ñëw hmm. def ñaari mandaam euh, ci biir ñaari mandaam yooyu la coono génn Mali euh, coono bi li ko indi euh, ku ne xam na ko hmm. France bi mu daanee lay Kadhafi la jël ay Touareg yoo xam ni eh, ñu nga nekkoon ak fi di ko jàppale Touareg yooyu la jël ak seen arme ak seen bagage yóbbu leen au normal ak ci dal mhm. pour ñu taxawal ko fa mhm. ndax lan ndax euh, liggéey bi muy liggéey bi France liggéey euh, Niger di fa exploiter uranium euh, loolu mu fay def dafa amoon ñuy bunduxatal liggéeykat ya fa nekk mhm. pour bunduxatal boobu dañ mu jël ay nitam tuwaar ak yooyu teg ki daal pour ñu jàppale ko ci foofu nag la coono Mali ñëwee euh, te loolu euh, président Adama Toumani Touré. Hmm. Euh, bu ko nanguwul woon peut-être du mën a am mais nangu na ko ba poids rek yooyu ñëw dem noor Mali lëkkaloo ak ay groupe armé yeneen ay djihadistes. Hmm. ni ñoom doon proclamé normal yi indépendant. Aminata Touré Touré au lieu que mu jël askanam taxaw. Mhm. woo leen jël douzième am yëpp ne leen nan taxaw pour libérer sunu réew mi nga xam ni tubaab yi ñu ngi koy bëgg a xaaj ole ko que mu def ko mooy noo day continuer moom di organiser élection eh, pour que moom mën a am beneen alternance. Hmm. loolu nag li militaire gisee ni seen président bii. toroxal bi leen toroxal au rey bi leen di rey ak malien yi nekk au li leen di massacré faalewul loolu lépp moom élection mooy mbiram boobu la ko officier yi daaneele hmm. dina ko daane rek France taxaw ni ñun damay taxaw pour ñu rétablir la légalité républicaine bi hmm. ñu ko waxee euh, Ablaye Wade ñu fi nekkoon président fekk Euh, wuutoon na fi Abdou Diouf Abdoulaye Wade était prêt pour que CEDEAO intervenir militairement au bu CEDEAO bañee moom mu dem mais li lay def rek mu daanu euh, euh, Macky ñëw bu Macky ñëwee France def na pression bu rek pour ñu envoyé militaire ñu bañ mu bañ mu bañ ba keroog ndax euh, euh, militaires yi France dafa bëggoon ñu awee pour ñu kiir ñu daaneel militaires yi nekk Mali hmm. teg fa ay civil Macky ni man duma envoyé armée sénégalaise mu xeex armée malienne hmm. man naa envoyé armée sénégalaise bu dimbali Mali hmm. pour ñu libérer nord waaye man ma envoyé armée sénégalaise pour ñu xeex armée malienne amoon nañu bari ci bor opposition yi ñu topp voilà Sénégal euh, pour nekk solidaire ak Mali hmm. ban solidarité armée Sénégal da nga xeex armée malienne waaw bu doon dañ leen ñu dem dimbale leen loolu mën naa nekk ah ma ne bu doon dañoo song Mali Sénégal dem dimbale ko mën naa nekk waaye song armée malienne voilà voilà loolu moo doon taxawaayu Macky Sall bi France maintenant ne ak opération Serval léegi day xeexal Eh, des ànd ak armée Mali pour leader de boobu la Sénégal d'accord pour envoyer contingent militaire ma bokk ci force de libération du nord Mali hmm. mais avant dafa bañoon donc loolu mooy diggante Sénégal ak Mali hmm. ba loolu ba naga ni te loolu moo tax euh, Mali mooy premier client des exportations du Sénégal. premier client. Mhm. dans le monde. Mhm. seen exportation Mali la gën a dem. te bu saxaar gi gënoon gënoon baax. Mhm. ah euh, sunu exportation dana fa gën a ëpp. Euh, mais malheureusement euh, chemin de fer bi trop trop li mu am. kenn teguñu ko lu dul lii eh, gouvernement Sénégal d'accordoon ci temps Abdoulaye Wade hmm. di dañuy privatiser chemin de fer. Transrail. ñi ñu ko joxoon muy canadiens yi. Hmm. xooli kan ñu renouveler refaire defaraat affaire bi déedéet li fi nekkoon la ñu utiliser ba mu euh, ba mu naxas ba mu yàqu carrément. Hmm. ñu bañ a renouveler ñu jël ko ñu jël ko seen loxo jox ko français yi. Hmm. français yi def tafiyeengal tafiyeengal dara doxul. ba Macky dafa mujj nangu d'accord ak euh, euh, gouvernement Mali. Hmm. IBK bi fi nekk. Hmm. te d'accord ñu nangu chemin de fer yi ci loxo français yi pour defar defaraat ko. mais loolu malheureusement banque mondiale. nanguwul euh, euh, ku financé chemin de fer ndax banque mondiale ci njëlbeen bu muy commencé programme d'ajustement structurel au Sénégal dina wax ne Sénégal chemin euh, de fer bi na dakk am am bu fi saxaar dawati boobu ci ta la ñu démantelé chemin de fer de Sénégal hmm. moo tax banque mondiale sawarul woon pour ñu indiwaat chemin de fer defaraat ko pour que euh, Sénégal euh, mën am ubbeeku jëm ci biir Afrique awale ko Mali. Hmm. loolu moo ci nekk ndax chemin de fer bi Dakar Bamako Niger la woon. Hmm. donc ñu am buntu ba dem foofu mais Banque mondiale taxaw ne loolu du am ci programme d'ajustement structurel yi ñoom ñoo de Sénégal. loolu moo tax ba léegi seen mooy kenn du financé xaw ma que Sénégal euh, wut yeneen bailleurs de fonds yoo xam ni bokkuñu ci euh, système euh, du consensus de Washington. Mm-hmm. mooy consensus bi nga xam ni moo lal politique économique et social mm-hmm. bi grande puissance occidentale yi bëgg a doxalee ci àddina bi yëpp. Mm-hmm. ku bokkul réew bu bokkul ci ñooñu. évidemment dañoo euh, ñoom am nañu droit jàppale Sénégal bu bëggee pour ma defar semaine de fer hmm. loolu moo tax Sénégal profité ci Chine pour bëgg a defar chemin de fer bi profité ci Turquie pour bëgg a defaraat chemin de fer bi euh, mais évidemment en en tant pareegul euh, discussion yi ñu mais taxaway baax mu leen am c'est du mooy bukk bunt Sénégal ci gestion budgétaire am pour mën a am nu mu nu pour euh, chemin de fer boobu am mais loolu day nañ saran seen bopp li chemin de fer bi dana bu ah. mhm. leer na alors ñu ñëw nag euh, ndax li nga fi wax ni dugal nañu daanaka ci tey Mali coow li fa nekk euh, am na ñaari fan ci ginnaaw fësal nga ci taxawaay ak gis-gis bi nga xam ne PIT euh, moom la ci am nga bokk ci boobule parti tey seen gis-gis ci crise malienne bi lan la ndax bàyyiwul Sénégal ginnaaw daanaka lu wokk Mali danañu xuri dem ba ñu boole te ba léegi tey itam taxuñoo tàqalikoo noonu. gis nga Sénégal di ko mën ne première la destination de ces exportations c'est le Mali kon Mali bu daanoo rek dana metti ci Sénégal sunu exportation dana ko yëg dégg de loolu moo tax euh, bëgguñu Mali am benn trouble mm. bëgguñu Mali am benn jafe-jafe mm. mais bëgguñu tam nangu Mali ñu koy xaaj mm. waaw ndax bu nangoo ñu xaaj Mali dañu nangu ñu xaaj sénégalais kon mhm. ñu bàyyi Casamance mu dem dem yoonam. Mhm. loolu mun ñu ko nangu. Mhm. yooyu taxawaay moom la Sénégal taxawaay ba léegi ci ñun pays ñu ànd ci. ñu ànd ci xayma nag li tax lii lépp am loolu moo tax ñu génne seen mémorandum euh, le 10 août pour euh, wane jaar-jaar France nu mu fi mu aw ba indi coono bi taxaw bi mu ci am euh, nag IBK. président Mali mi mm-hmm. nga xam ni moom ci crise bi ci lu ci France wax la wax ba yëf yi tagatémbe ba loolu tax askanu Mali jóg taxaw ne IBK day dégagé pour que ñoom ñu mën a ubbi bunt tant que IBK mi ngi fi France yoro ko xot ko ñoom duñu mën a am jàmm te duñu mën a libéré seen réew loolu moo ci ne loolu moo tax ñoom ñu jóg taxaw nu IBK na dem ah, mais Eh, ñun yóbbu ñu foofu ci constat bi danga gis ni li tax euh, les pays de la CEDEAO xam li xew Mali am taxaw bi taxaw pour IBK bañ a dem lu tax loolu lan la bi ko gëstu ba gëstu ñoo gis ni li ñu nekk régime présidentiel mooy régime boo xam ni dafa euh, dafa am cumul Euh, fonction président ak fonction chef exécutif nga xam ne yow yow doxal yow yaay dogal yow doxal et puis sax yow yaay atte ndax influence bi mu am ci pouvoir législatif euh, pouvoir judiciaire boobu pouvoir moom la africain yu bari yu bari bëgg a àcc moom ndax boo ko amee yow yaay buur yaay bumi yow yaay yon yàlla di yonent di malaykal mawt waaw nañ koy waxe ci ci kon boog pouvoir boobu moo indi coono Afrique te pouvoir boobu moom la Mali yi taxaw ni dafay dañ moo tax ñu ñoom am nañu sañ-sañ en tant que peuple ni IBK pouvoir exécutif dootoo ko dootoo ko boo boo fa bëggee toogaat pouvoir exécutif doo ko mën a euh, euh, doo ko mën a boole ak pouvoir présidentiel da ngay nekk am pouvoir présidentiel eh, askan wi jël pouvoir exécutif eh, nu koy defee mooy eh, premier ministre mouvement populaire boobu moo koy nommé ñooy nommé seen gouvernement ñooy doxal politique de la nation yow président yow ngay comme Allemagne yow ngay. saytu ndax ni ñuy def méngoo na ak yoon ndax dañuy dañuy def méngoo na ak uh, intérêt askan wi président loolu la war saytu mais du fi nekk ni may bor may bu mi may dogal may atte loolu mënul am ñoom président yooyu nga xam ne lii bu bu malee bu ko amee ñoom régime présidentiel pour ñu conserver ko pour mu mën a nekk. pour mën a continuer dana euh, jafe trop ndax askan wi dootul nangu lii malien yi wane ba jot ci ñoom ñu gëmm ko gëmm ci bañ cee jot mhm. ah, te pouvoir présidentiel ni mu amee doole régime présidentiel ni mu amee doole moo tax bu élection présidence di am coow bari mhm. ku ci gagné ba am ba jaxase mandat doo bëgg dem mhm. ndax nguur nguur pouvoir bi nga yor bu fekkee ne loolu euh, euh, tas nañu cumul boobu pouvoir présidentiel nekk fee pouvoir exécutif nekk fee ñu bokk liggéey yor réew mi loolu dana tax moo am li ñuy wax équilibre équilibre yooyu nag des institutions moom la ñu foofu la ñu a xuus li xew Guinée kii toppatoo bëgg troisième mandat. Mm-hmm. xew euh, Côte d'Ivoire doo bëgg troisième mandat. mu am sax ñuy sëb sooy màcc ni li bëgg troisième mandat te yàlla xam ne ni mosu koo ŋaan. Mm. loolu. kon pour yow Macky leeral na askan wi nii ci troisième mandat. pour man leeral na ko bu yàgg ba ma bindee ni kenn mënul am ñaari mandat lu ëpp ñaari mandat yoo toppante pour man leer na maintenant ku ci nekk na wax lu ko neex. waa nii wi nii noo gi mujjee wax na loolu la askan wi jàpp. Mm. te loolu la askan bi jàpp de. Hmm. kenn mënuloo am ñaari mandat yu topp yu ëpp ñaari mandat yu yu yu yu toppante. kenn mënu ko am fii ci Sénégal na lii yoon wax nan ci taxaw ku bëgg euh, jalgati yoon mais askan bi seet boppam Abdoulaye Wade bi mu ko defee ñu ne ko li nga def jalgati yoon mu ne dama bëgg damay def cour constitutionnelle non conseil constitutionnel ni ko am nga droit moom tamit askan wi woon na ko. ni ko doo fa amee projet naa loolu rek parce que askan wi bu jàppee ni waru am troisième mandat nga ne bëgg naa dinañ sonal sa bopp sonal askan wi doo ci jot ndax dañu taxaw doo ko am loolu moo ci nekk mais nag boo nee dama bëgg a def troisième mandat forcé loolu mooy indi coono askan wi te lu ko jar mooy li ñu ko jaral mooy lan nguur gi nu tey bëgguñu ko bàyyi tant que ñu ngi dund bëgguñu ko bàyyi hmm. loolu moo ci nekk ndax loolu. ndax nguur gi dafa cumul de pouvoir yu yu rëy a loolu nag moo fi war a jóge hmm. te wóor na ma ni Sénégal bu bëggee jógee ci coono kii euh, di def euh, deux troisième mandat wala xëccoo yu bari du jax du xaj ci ci élection présidentielle bu ñu ci bëggee génn ci coono yooyu yëpp day def régime parlementaire mu jeex. Hmm. bu defee régime parlementaire. Hmm. kooku dana leer nañ. ñi xam ni ñoom la askan wi wóolu ñoom ñoo leen fal député ñoom ñooy am majorité bu boo amee majorité assemblée nationale ñoom ñooy assemblée mooy fal premier ministre premier ministre moo def programme boo xam ne da koy président assemblée nationale ba assemblée d' accord ci. Mhm. su koy mën a doxal. président la di seet nag nit ñi kii li muy doxal ndax méngoo na ak sartu euh, réew mi ndax méngoo na ak euh, euh, intérêt réew mi. ndax euh, euh, jalgatiwul euh, institution yi dina war a taxawee loolu la président war a saytu hmm. waaye du ni damay saytu loolu ba pare di dogal di doxal yooyu dogal di doxal it di saytu loolu mënul am hmm. loolu moo ci nekk te tant que defuñu boobu jéego coow troisième mandat ak ak coono élection présidentielle hmm. ñu ci jógee d'accord loolu mooy waxtu mhm. alors coowal Mali gi PIT def ci taxaw seetlu gu yaatu ni ma ko waxee sànq ci ab euh, euh, mémorandum boo xam ni génne ngeen ko euh, fukki fan weeru août bi nga xam ni moom la ñu weesu tey bu ñu yegsee ci saafara yi maanaam solution yi yéen lan ngeen gis ne xëy na tey bu ñu ko defoon ca Mali jàmm dina fa dellu si ak surtout ban taxawaay la ci Sénégal war a am. gis nga xam nga kenn du tot bopp jën a jàmbur. waaw Malien nee nañu pour jàmm am lii lan war a def. Hmm. te ñun yaakaar na loolu lan war a def. mooy lan bu président euh, IBK. Hmm. Ibrahima Boubacar Keïta. Hmm. bu bëggee toog nekk président. mën na ko ci kaw mu mu bàyyi pouvoir exécutif askan wi euh, def transition bi ñuy wax transition boobu lan la mooy askan wi ñu choisir premier ministre choisir. Euh, une assemblée constituante boo xam mooy réformer constitution bi te un organe législatif organe boo xam ne mooy wote li premier ministre de transition bi euh, bëgg a def loolu moom la malien yi mënu fa alee bu ko ibekee nangoo jàmm mën te mu toog nekk président kenn ku bu ndoxatal moom dana ko jox cër pour mu veiller te lépp dox normal loolu na moo ubbi buntu régime parlementaire mm-hmm. te loolu la France bëggul eh sunu mbokki président yi tam fii bëgguñu ko mais mënuñ ci dara ndax askan yu nangootuñu li fal nit mu nekk buur nekk bumi mm-hmm. nekk yàlla nekk yonent nekk malaykay mawt askan yu nangootu ko loolu moo ci ne France mënu ci dara sunu chef d'état yi mënuñ ci dara mm-hmm. loolu moo tax ñëpp war a tax jàppale malien yi pour que li ñuy yootu ñu am ko avec le moins de cas possible mais ñun ko seqal ñoom en tout cas IBK wane na vingt cinq morts déjà vingt cinq morts. Hmm. kon wax kii wane ne xar xar kanamam surtout que maintenant chef d'état yi ñu ngi ko ñu ko jàppale pour mu toog. Hmm. France ñu ko bañal maa ngi sa ginnaaw. kon bokk waaw moom wax. kon bokk euh, Sénégal daal war nañoo taxaw. sunu baat jëm kaw pour que maliens yi li bëgg IBK fekk leen ci jàmm ni ñooy ci Mali jàmm ni ñooy ci parce que maliens yi dana wax ni maliens yi revendiqué dan ñoom dañoo bëgg a delloo euh, autorité de l'État au nord Mali mm. te loolu li ko gàllankoor mooy accord yi nga xam ne IBK moo ko signé ak euh, rebelles yi ak indépendance yi à Algérie sous euh, la présidence de la France et de l'Algérie accord yooyu moo tax euh, normal yi nekk ci tànk wu jógee ci loxo Mali hmm. moo tax ñoom ñu ni dañoo bëgg delloo autorité l'État au nord du Mali te loolu force ñu seetaat accord d'Alger yi hmm. France ne du ci daal Ibeka ne du ci daal Euh, euh, groupe armé yi leen di sonal ñoom ñu ni dañuy ubbi négociation ak groupe armé yi hmm. États-Unis bi mu sonnee Afghanistan nu mu def du négocier ak taliban yi pour jàmm am France ni kenn du négocier ak ñoom d'ailleurs dama naa woo Europe ñu jàppale ma ñu ñëw xeex contre groupe armé ndax ay terroristes la ñu hmm. mais Mali ñoom ñu dañu bëgg jàmm dañu discuter ak ñoom pour am jàmm français du ci dal Ibrahima du ci dal ñooñu bëgguñu jàmm. mënu bëggoon jàmm dañu fekk dañu gis li yi comprendre ni eh, groupe terroriste foo mënta aw la nga discuter ak ñoom. Mm-hmm. pour jàmm am loolu bu ko France comprendre gul Mali ñoom comprendre nu ko ci yooyu taxawaay leen taxaw. d'accord léegi boo naan Sénégal war nañoo jàppale Mali xanaa askan wi ngay wax ndax président Macky Sall moom mu ngi ci CEDEAO ñi mujjoon a dem waxtaan yi ak waa RFP euh, waa M5 RFP plutôt euh, ci la bokk te xëy na moom ak yeneen président yi tamit ñoo bokk position. waaw gis nga man de mënu wax seen diggante duñ ci waxante. Hmm. mais li ma camarade malien yi wax. Euh, malien ñu ni hmm. Macky dafa ni leen ne seen xel dal. ñun du leen imposer benn solution moom lan Macky Sall wax hmm. mais bi ñu ñëw bi chef d'état yi am génn résolution bi am imposer nañ leen ay solution tu la hmm. kon boog lu ñu waxante seen biir xaw ma ko hmm. mais li leen wax wax na li ñu ma ko te maintenant bu fekkee ni Macky dañ ko minoriser Macky du génn CEDEAO pour loolu xaw ma ndax ma dana ko minoriser wala xaw ma ko mais li ma wóor ba wóor Alassane Ouattara ak euh, euh, Alpha Guinée ñoom dañoo fësal seen jàppale. IBK eh, IBK euh, président Nigéria dafa fësal jàppale IBK kon boog bu fekkee ni mag rek moo ne imposé du mën a jàll. Mm-hmm. te loolu warul tax Macky génn CEDEAO CEDEAO intérêt bi ñu ci am. Euh, ëpp na loolu. Mhm. voilà kon boog mais nag xaw ma doon waxat seen biir di mais leneen Macky wax wax nañu ko. d'accord alors. en euh, pleine en pleine réunion hein. ñoom en pleine réunion. délégation cinq chefs d'État yi. Mhm. Macky Sall ne leen ne seen daal du leen imposer dara. d'accord yéen yéenay trouver solution. seen réew la waaw da leen di jàppale rek d'accord leer na alors euh, fi ñuy jeexalee mooy ci France wax nga ne xëy na France amul choix askan wi ñooy bañ mais gis nañu ne loxol France moom ba léegi génnul ci suñu réew yi daanaka réew yi am jafe-jafe yépp boo ko xoolee ba xool ko loxo France mi ngi ci biir naka la ñuy def ba dog buum boobu nga xam ni moo dox suñu diggante ak France donte histoire moo ñu boole ñoo ñu coloniser woon mais ba ñu nee indépendance nag war na am loo xam ne réew ma ca boppam akum askanam ñoo koy moomal seen bopp. tant que pouvoir présidentiel mi ngi am ah. Hmm. France du teg loxo ci xam nga lu tax. Hmm. ndax euh, sunu politiciens yu bari dañu bëgg a nekk président de la république. Hmm. pour am boobu pouvoir dégg de. te pouvoir boobu boo ko amee doo rendre compte kenn ci askan wi. looy def da koy def. dégg nga de. Hmm. doo rendre compte tout sa mandat jeexee. Hmm. dem élection. mu ci diggante lu la neex def te ci diggante boobu na la la France di guerre la kii di la bu ndoxatal des sax mu lay menacé nii dinaa jàppale kii ak kii. Hmm. pour daaneel la. xam nga bu kay yow li def euh, doo rendre compte askan wi. te askan wi lan la ci mën a jóg ci jóg mbedd bu fekkee nett ne ko ba metti te mën na koo jàpp mm-hmm. mën ñu ko nangu mm-hmm. comme ñoom mel Mali leen génn loolu moo ci nekk mm-hmm. tant que régime présidentiel mi ngi am dana jafe dana jafe encore une fois pour France génne loxo ci ñun ndax benn nit lay doon France mën a def pression ci moom exactement gis nga pression grande puissance mm. di ko du dàkk mukk mais bu fekkee assemblée nationale la mhm. ah day ay lobby ñoo fay dem mhm. di def pression ci député yi di leen ger même aux États-Unis mhm. ay lobby dafay am sur le congrès euh, euh, en union en dans l'union européenne au parlement européen dem ay lobby yu dem di def pression mais du lobby li def pression dana tax kii gouverner ki xam ni majorité moo koy jox gëdd assemblée nationale pression yi du tax euh, mu def loo xam ni majorité d' accord ci li hmm. nga de hmm. euh, mais bu fekkee ni président la hmm. moom euh, kenn du pression day def day yomb ci moom te lu ko te lu neex lay def tant que ma ngi mandat baa ngi fii kenn du ko laal loolu askan wi surtout rek génn ne ko na nga fi jógee coow ni ci réew yi loolu moo ci nekk loolu moo tax régime présidentiel moo indi sunu jafe-jafe fii ci Afrique fii ci Afrique. mais est-ce que tàqalikoog régime présidentiel tamit dana yomb bu dee sax mën naa nekk ci ni yëf yi doxee tey. non non non non mën na nekk. mën na nekk ci kaw askan wi taxaw ci xam nga affaire bi du yëfi théorie. Hmm. yëfi pratique la ku ne xam na régime présidentiel. waaye hmm. lu nekk lu nekk. Hmm. lu ko neex day def euh, même bu deful ñu ne moo def. même boo xool ñu ni moo wax ndax moom la constitution may nii mooy doxal mhm. mooy doxal mhm. alors doxal ndax premier ministre mi bi muy bi muy nommé ci waawam lay dox mhm. kon boog ministre yi naka léegi sax euh, dindi na premier ministre moom mooy dogal di doxal carrément régime présidentiel net te dégg li ci askan wi di wax kon lii mënul mënul mënul wéy fu nu ay la buddu régime parlementaire la ñu jëm ko comprendre dana ci taxaw bu ko comprendre dana mujj askan wi teg ko ko wala teg ko ko fi ñëw di ko fi wuutu ndax euh, pouvoir présidentiel ni mu nekkee doole bi mu am ak sañ-sañ bi mu am hmm. euh, askan wi mënatu koo nangu loolu moo ci nekk te gis nga ne réew yi Afrique yëpp xëy na boo maywul ni Sénégal noonu tamit la ñu nar a jëm. c'est-à-dire. jéem a dem ci régime parlementaire ndax yaa ngi ne ni muy doxee nii askan wi mënatuñ ah, ko ñëpp ñëpp ñu ci am conscience. Hmm. en tout loolu moo tax Maliens li ñuy def nañ ci taxaw pour mu antu. Hmm. ndax ñi wax ne mënoo am yépp bu antoo ñu noppi. Hmm. dégg nga de ñi wax ne mën bu antoo moom ñu noppi. dafa mel ni rek kon dañuy delluwaat démb ba ñuy laaj indépendance fallait que ñu jàppale kenn ba mu am bu ko defee ñi ci des mën a am confiance xam ne kon lu mën a nekk la exactement d'accord exactement leer na loolu moo ci nekk mm-hmm. te vraiment yal na yàlla gifal xol yi delloo idéeka xelam euh, pour que moo seetaan mbir mi mm. intérêt France jarul mu rey ay askanam ba jox doxaat. Mm. rey na ci deux vingt cinq manifestants. Mm. doy na sëkk. boole ci tardé bi réew mi di tardé. moom moom waay tardé et puis ñun. doole ci li tardé woon. <laughs> gis nga gis nga ñun indi nañu problème ndax sunu importa sunu exportation mi ngi wàññeeku bu baax. Mm. bu wàññeeku Mali rek waa narmelu. Sénégal yëg ko. mu ngoog. jërëjëf. Mm-hmm. ok merci beaucoup jërëjëf Ibrahima ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi démb ak tey euh, sukkandiku woon ci euh, bis bi nga xam ne ci la Sénégal génn ci fédération du Mali muy ñaar fukki fan weeru at atum 1960 ñetti fan euh, moo dox suñu diggante ak bés boobu di 20 août ñu war ko fàttaliku jaare woon ci itam ñëwaale ci coow li nga xam ne tey moo nekk Mali ndax tout est histoire la démb la tàmbali mooy wala ngaan ba léegi Ibrahima Sène bu PIT PIT def juste moo taxaw seetlu ci coowal Mali gi mémorandum bu ñu génnee fukki fan ci weeru août wi nga xam ne ci la ñu nekk ñu ngi lay gërëm bu baax seen euh, rafetlu waxtaan wi macha allah. Ah, kon mbokk yi mu nekkoon seen émission démbagte ak ñu doon ci dalal Ibrahima seen bu payite Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi feggoog jaaw jàll ci wàllu machine bi ñu ngi leen di gërëm euh, dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog